asalaamaaleykum mbooloo mi ñu leen di baal ak di nuyu ñëpp di nuyu responsable politique yi fi nekk di nuyu kilifa yi fa nekk di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Fuuta yëpp mbooloo mi barke Dembo Ndiaye kër farbangom dafa am lu fi xew lu ñaaw lu ñuy mettitlu ndax àll Alaaji Farba Ngom ku ko xam xam ko ci baax xam ko ci social xam ko ko ci bugg nit ku yaatu ñun daal ñu ngi ñaawlu lu xew li ñu ngi ñaan aussi population bi di ñaan ñépp nañu àndal dal parce que lépp ci dàll lay xewee te far ba ngoom aussi dafa ñaan ñun ñépp ngeen ànd ak dal lépp ci dàll la jàmm ci dàll lay amee di remercier aussi population bu ngoor diggante Farba Ngom ak waa ngoor jàmm fa am jàmm moo fay am jàmm mooy amat tamit parce que seen diggante dafa rafet nekk na loo xam ne mbokk la xarit la lépp ba barke démboo Njaay ñoo ngi gërëm jaraaf ñoom moom tamit wax na lu rafet te lu rafet rek moo ciy am kon foofu amul lu ñuul lu weex tàll waaw bu ñu paasee ci loolu lu xew nag dafa nekk loo xam ne lu doy lu nit mu nangu nga tabax sa kër ay nit ak sa mbaabooy jóge fee yàq yàqet kër gi dafa metti dafa ñaaw heureusement ñoo ngi remercier les forces de l'ordre qui sont à leur ak sécurité bi fi nekk moo tax bakkan mun na fi tuur waaye nag ñun ñoo xam ne ñooy responsable politique ñun ñoo xam ne ci njabootu Farba Ngom la bokk ñun ñoo xam ne ay mbokk ay xarit lañu ay doom lañu ay nijaay lañu ci Farba Ngom ñoo taxaw tey jaakaarloo ak Samba Boy xam nañu seen programme xam nañu lu ñu bëgg ñoo ko waxoon fii mais nag dafa am loo xam ne mënut mënutul am parce que bu fekkee am na ay politiciens yu mbubboo ci suuf di def yu ñaaw ñii amuñu vision amuñu programme seen vision lenn la yàq kër jàmbur yi yàq administration bi yàq lépp bu fekkee nag ñoom lañuy ñuy waxal ñoom bis ni ki tey dañu xam ne Farba am na mbokk am na xarit am na ay sympathisant kuy sànni di daw du lakkatu doo góor doo guerrier bu fekkee guerrier ga da ngay jàkkaarloog ñun face to face ñun du daw góor du daw yu fi toog yëpp ay géeree lañu duñu ay tapet def leen face à face ñu xam leen yéen doo leen dara mais nag comme que ñun dañu ànd ak dàll lépp dañ koy teg ci loxo yoon te xam nañu état dina def lu mu ci war du ci wax lu bari ci enquête bi mais état du ñu def lépp du ci war ñu wax la nag. pare nañu pour lépp pare nañu pour lépp samba booy am na ñoo xam ne nag li ngeen yaakaar ne du dina amaat du amaat ñoo ngi leen di gërëm di leen sant euh, di leen wax aussi bonne fête de Korité merci. Bonsoir à toute la presse. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous excusons également du peu de retard que nous avons accusé pour le démarrage de cette activité qui tient aujourd'hui le Sénégal à cœur. Le vendredi 21 avril de sinistres individus mal intentionnés ont saccagé et brûlé la maison de l'honorable député maire des Agnam, monsieur Farbango. ces actes de vandalisme sont prémédités et obéissent à une consigne abominable plusieurs fois réitérée par les théoriciens de saccage de domicile des responsables de Benno Bokk Yakaar et de hautes autorité de l'État. Nous précisons avec conviction que cette attaque n'est pas l'œuvre de la paisible population de Ngor, dont nous magnifions d'ailleurs les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui existent entre elle et l'honorable député Fatongom depuis plusieurs années. Toute cette violence gratuite est l'œuvre de groupuscules terroristes manipulé et pénétré par la théorie de la subversion politique et de l'insurrection pour espérer semer le chaos et ramasser le pouvoir dans la rue, ce qui n'arrivera jamais au Sénégal. Nous ne doutons pas un seul instant que l'État prendra ses responsabilités pour identifier et punir sévèrement les auteurs de cette pareille ignominie. Toutefois, nous informons l'opinion nationale et internationale que dorénavant, nous, militants et responsables politiques de la région de Matam et les sympathisants, amis et voisins, formeront un bouclier pour protéger notre leader politique notre frère, notre ami, M. Farbangom, contre toute menace. Pour que nul n'en ignore, le Sénégal est pris en témoin. Je vous remercie.